jeudi 27 mai 2021 mbokkee xarit yi ñuy seetaan à travers Equivox TV nuyu nañ leen amati nag mbégte rek di jàkkaarloo ak yéen di leen wax dal leen ak jàmm ci seen journée. comme ni ma leen koy waxee rek saa su nekk lépp loo xam ne rek jóge na ci làmb ji dinañ toog fii dal di ko waxtaanee faram-fàccee ko baaxee leen ko waaye à chaque fois rek na woon fa woon ma ciy ak ki nga xam ne moo di Babacar Diome Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay ami. yaa ngi yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi sant bu baax a baax. maa ngi sant waaw maa ngi nuyu ñu ngi suivre ñëpp leen ñaanal jàmm di ko sàkku si ñoom ah, di leen béggee comme ni nga ko waxee tey di jeudi 27 mai. Mhm. di wax ka rek yàlla nañu yàlla defal jàmm def ko si àddina bi xam nga may musul muccal ñëpp musal ñëpp te itam di ñu mosal lu nga xam ne ni mm-hmm. moom la ñuy man di teddee yàlla mën na ko yàlla na ko def te mu ànd ak wér gu yaram gudd fan am na solo voilà ah, tey kontaan nga de ah. Ah, ndax muñ bi waaw non man amin ma déggu li ma lax man moom man man man suma sañoon suma bët yi mm. bëti garmi lay doon sama nopp yi nopp garmi mm-hmm. lu baax laay xool mm. lu baax lay déglu baax waaw man daal keneen ku yor leneen jëlal moo tax moom samay muñ moom waaw man moom foofu laa taxawee quoi. <laughs> noonu lay demee voilà voilà ñu dem seetaani revue bi daal di dellusiwaat. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. jeudi 27 mai 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu lamb nag moom tey ñaari doomi géeja way maanaam la xëy fësal ñaar ñoo xam ne tamit maanaam ñoom ñoo bokk wuy jur muy Balla Gaye numéro 2 ak rakk jari Sa Thiès mel ni ki nag yëglikaay bi jàpp na ne daal ñaari duume duubalee si daal soo bëggee dégg dëgg day mois de juin ak mois de juillet ci ren jii nu nekk moom saison bii nu ne maanaam seeni weer lay doon ndax ku ne xam na ne Sa Thiès ci bés bu rëy la jëm a jëm le 26 juin digganteem ak ka nga xam ne nii moom moo di Moussa Ndoye fa nga xam ne moo di ci arène nationale muy bés bu mag boo xam ne mu ngi koy xaar woon défaite bi mu mujj am digganteem ak Boy Niang kon moom itam mois de juin boobu daal weer la woo xam ne daal wuréy la ci moom mag ja Balla Gaye numéro de buñ génnee juin jëm ca juillet ja moom itam ca la war a jàmmarloo ki nga xam ne ni moo di Bombardier loola tamit yëglikaay bi ne noonu le 31 juillet la war am moo tax yëglikaay bi jàpp na daal ñaari doomi dubale si daal ah ci ay épreuve yu danga danga dang wala yu méttee méttee métti la ñu jëm wala boog moo leen di xaar moom sunu làmb moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne nii itam la kay xaar métti na moo tax yëglikaay bi jàpp na ñaari mbiri ngi yoo xam ne daal yu doy doy la yu koy nekk moom mooy ka nga xam ne nii moo de Franc Franc ku ne xam na ne moom ak Tyson 2 ñoo war a jàkkaarloo le 9 juin ci arène nationale yëglikaay bi nag nee na Franc ñaari mbir yi koy xaar bokk na ci fexe ba maanaam ñàkk daanoom gi mu nekkee mu continuer ko waaye itam yamuñu ca maanaam Franc leneen loo xam ne mu ngi koy xaar maanaam jéem a am ndam pour mën a fëgg nag buntu VIP ya ne leen koŋ-koŋ maa ngi nii yëglikaay bi ne na ñaar yi moom moo ngi xaar Franc bu baax a baax a baax fa nga xam ne ni moo doon ci arène nationale ba ma nag daa mel ni ki démb moom ka fa yëngaloon wala mu fëgg fa moo doon idaali ñëng ak lambam ja mu dë tëggoon démb ci mercredi mel ni ki nag dab daan moom maanaam wuyoon na aw turam démb daal dab na mbaytin ci arène national ci côté Géejawaay ma nga xam ne Géejawaay la dëkk jóge écrit waalo dal di ko dab daan ko yëglikaay bi xëy na tey wax nu lu mel ni ki waaye yemuñu ca de tournoi ba nga xam ne i daal da koo dugaloon ca biir tamit combat ya neex na ba yegg ci lool mel ni arène nationale yëngu woon na dem caatu Daawuda Fall tamit géejawaay la génne dal di fa daje ka nga xam ne nii moom moo doon ki nga xam ne moo di yankaaw dal di ko wan boppam daan ko jël bu rëy rëy bu leer nañ waaye beneen combat boo xam ne amoon na te jël bu rëy lool moo doxoon ci diggante ak nga xam ne ni moom moo doon Kaaw Gourdin ak Albarka Kayre Kaaw Gourdin bu dali foor daal moo jàpp Albarka Kayre bu écrit bés daan ko jël bu rëy rëy ginnaaw nag ba ñu xeexee xeex bu tar mu wàcc rek tibb ko daan ko waaye teq jël daan dem tamit réparé ak ki marle moo ko fa daan mel ni kon démb daal arène nationale moom yi daal ñu ngi yëngaloon na ko ba yegg ci lool lool yëglikaay bi sunu lamb moo xëy tey ñëw dina wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne yëglikaay bi mu ngi xëy dinu ko wax mu mel ni ki nag xale yu mbër yooyu nga xam ne ñoo nekk ci làmb ji te tudde seen bopp ay xale wala ñu jàpp leen ko ñoom daal fi mu nekk nii comme dañoo jàpp ne ñoom mbër yi nga xam ne ñoom ñooy mbër yu mag yi ak seen président ba ñu àndal muy Gris Bordeaux ñoom gisuñu seen bopp ca la muy doxal moo tax nag ñu fal seen kuréel gu bees maanaam daal association national des jeunes lutteurs du Sénégal daal la ko tudde seen président nag maanaam du kenn ku dul mobile bu Grand Yoff yëglikaay ba xëy na nu tey limbal ñu bureau ba ña ca ne mobile bu Grand Yoff moom la ñu tabb comme président premier vice président ba du kenn ku dul Papa Boy Djiné ma ngeen xam ne Kékri Wàll deuxième vice président ba di booy Jolof bu xam sa cosaan secrétaire général ba kenn la maanaam gàkku numéro de école Balla Gaye ka ca toptal wala kañ ko toftal moom moo di daal wala bok poste ya nga xam ne ni moom mooy poste trésorier yaag secrétaire général ya bu bëggee dégg dëgg daal gàkku de moom mooy secrétaire général kuréel ga ka nga xam ne nii nag moom mooy re wàllum xaalis baag trésorier gàkk yu mel ni ki noonu àggagoo la boo xam sa cosaan leneen loo xam ne ba tey mu nga ca biir mbir mooma maanaam seen sal seen wàllum wax maanaam communication ba kenn ku dénk du kenn ku dul ki nga xam ne nii moom moo di konaa bu lamsaar mel ni ki ñoom daal kon fi mu nekk nii la ñu bëgg mooy gis seen bopp ci làmb ji ndax dañoo jàpp ne daal dañ cee bokk te itam nag deesu leen fàtte moo tax ñu bëgg a yëglu ut seen kuréel di dox seen mbiri bopp di défendre seen i intérêt mel ni ki nag ondu la fu démb xamoon na lool ba ndaje ma ñu amaloon daal ondu taxaw na ca défendre seen i bu baax a baax ñoom jeune leader yi keneen koo xam ne nii moom yëglikaay bi xëy na tey wan ñu ko muy Jax di ab promoteur Jax daal fi mu nekk nii soo bëggee dégg dégg dëgg moom fukki million ak ñaar maanaam douze millions daal la fas yéene séddale ci diggante Kolda Thiès Saint-Louis ak Kër musa ak yeneen dëkk yoo xam ne daal li ko commencé le douze juin daal booy boobu nii dem ci le cinq juillet daal fu ci dem. tëgg fa lambi simple wane fa boppam li nga xam ne noonu la koy defee fi nga xam ne nii moo di ci Ndakaaru moom Jax ba tey bu nu continuer lambi simple jooju moom soo bëggee dégg-dégg mu ngi yëngu ci àll bi bu baax a baax ndax fa nga xam ne moo doon ca simal daal maanaam la 21 jàpp la 24 mais bii nu nekk yëglikaay bi nee na Pape Maroon bu joyin daal moo fa wane boppam imposé fa lañ fa tegoon ci xaalis ke fan yooyu mu nangu ko feneen foo xam ne lamb simple amoon na fa moo doon ca ñaaw lundi vingt cinq mai la woon nga xam ne moo di ngañ seen ak onge njaay daal ñoom ñooy vainqueur yi ñoo fa wane seen bopp feneen foo xam ne tamit am na ko fa wane boppam mu di nam loor ndam nag mu nga nekk ca joof yor mel ni ki nag doomi joof yor jadi ibu njaay daal tamit moo fa dem wane fa boppam ca poids lourd ya poids léger ya tamit ko fa wane boppam moom moo di ibrahima diop moo fa dicté ay lu am wan badara sarr lu leer leer a leer poids ba Babou Sarr tamit ba tey moo fa wane boppam yëglikaay bi xëy na tey ñëw wax nu lu mel ni kii noonu ba tey sunu làmb mu ngi nuy xamal ne daal drapeau chef de l'État ba moom fi mu nekk nii nag ah démarrage moom day commencé ca Kaolack xëy na nu wan nag équipe bu Cees ba ñu nga taxaw ak itam ña nga xam ne nii ñoo ci fas yéene bokk mu mel ni ki daal fukki raison ak benn daal fi mu nekk nii moom pare nañu ngir xëccoo ji drapeau chef de l'état ba nga xam ne fu may fa muy amee moo di ca Kaolack bu ñu fa jógee dem record record tamit ñëw na ci la amoon dem ci arène ak la nga xam ne moom la dab daan def daal di fekk mbaytin ca géejawaay wala la ko jegeñ daan ko jël bu rëy rëy dal di ñibbi ca jam ñaajo yëglikaay bi wan ko ca kaw tribune ñu koy jox la nga xam ne ni moom moo di torofeem moom dab daan yëglikaay bi sunu lamb moo xëy wax nu ko kenn koo xam ne tamit fan yii mu ngi wane boppam ci lit simple bi muy Serigne Ndiaye numéro de yëglikaay bi daal nee na boo bëggee dëgg-dëgg ca ñaxar daal Serigne Ndiaye 2 kam fa woon boppam du kenn kurul dul Famara Baasul daal la fa Serigne Ndiaye dajal en final dal di ko gañe jël la nga xam ne ni moom lan fa tegoon mel ni ki daal fi mu nekk nii kon soo bëggee dëgg-dëgg moom lamb ji sàjj na ba yegg ci lool waaye démb ci àllarba ji moom loolu la waaye mën a wax moom i daal di ñing la mu def arène nationale na ba yegg ci lool xale ya bëri nañu supporters ñëw nañu amateurs ya ñëw combat ya neex mbayang way moom tëgg jëli ya rëy làmb nag loolu lañ ci soxla looloo nekkoon revue bi Babacar ñu daal di ñëw nag ci journal suñu làmb tey xëtam bu njëkk kañ fa gis rek moo di ñaari doomu Double Less yi Sa le 26 juin incha allah ki nga xam ne moo di Balla Gaye 2 euh, le 31 juillet. Mhm. waaw le fils de Double Less à l'épreuve. waaw bien sûr parce que loolu defe naa ne mooy lu leer nañ parce que defe naa tamit ñoom loolu ñoo ko opté. Mhm. ba pare doon na ko ci seen wayjur waaye ñëw itam. Mhm. di ko def. parce que loo doon tamit te sàmmoo ko mën naam du dëgër waaye mbir boo ko doonee te sàmm ko day dëgër doon nañ bëri ci seen wayjur du balees ñu ngi koy ñaan gudd fan wér gu yaram ñoom tam ñëwee ja jaar si ay tànkam nekk ay mbër liggéey parce que ku boo liggéeyul dubale sa suma papa kese du doy euh, dañoo ñëw liggéey pour nekk ay mbër loolu nag bi mu amee kon defe naa ne ku mbër nag di nga am ay date yooyu bëree moo tax ñu am ñaari date yi mu teglantoo muy deux mois yi teglantoo mooy juin ak juillet Sa Thiès mois de juin le 26 digganteem ak Moussa Ndoye bu boo xam ne li ko ci xaar metti na torop ndax mook Moussa Ndoye loo ci mën a dégg seen combat yàgg nees na ku di ko di ko wax Moussa Ndoye yàgg na bëgg bëri ak moom te yàlla di dox di dox ba Gaston Mbengue tëgg combat bi ñu war a bëri le 26 juin Balla Gaye de bu ñu ci jógee le 31 juillet moom ak Bombardier ku ne xam na foofa la fa xewoon ba ñu fi bëree Bombardier daf ko daanoon tey revanche war fa taxaw kon ñaari mbir yoo nga xam ne nii la ñu ngi leen di xaar ah du lu ah, que tamit maanaam ñi ñu ko seqal ku ci ne am na loo bëgg Bombardier bëgg na dëggal diggante ak Balla wane ne wane ne maa ko la ma ko defoon du lu ma tantu dama koy defaat mhm. Moussa Ndoye itam bëgg na ñëw génn ci Sa Thiès génn bu leer nañ parce que bi muy jóge ci làmbam bu mujj diggante ak Garga Mbossé dafa amoon defet waaw kon fi ñu jëm épreuve yu métte métti la mhm. waaw am na solo waaye ba tey rek ñu ñëw ci ki nga xam ne moo di Franc mhm. garder son invisibilité frapper à la porte des VIP maanaam mooy deux défis yi nga xam ne daal moom la Franc am fi mu nekk nii ci digganteem ak Tyson 2 waaw deux défis de bu ñu ko waxee mooy ñaari mbir yoo xam ne nii wala ñaari waar yu mu war a bay mhm. yoo xam ne nii bu ci ne waar bu mat waar la mhm. ndax Franc ku ne xam ne lutte avec am amagu si defet te tey bëggu cee bëgg bëggu cee am defet lutte avec frappe waaw amagu ci defet loolu moo tax yëglekaay bi wax la loolu ci épreuve bu njëkk bi muy loo xam ne bëgg na ku téye garde ko maanaam garder sauvegarder loolu nga xam ne nii moom mooy ñàkk defet mhm. napp ñàkk defet gi mooy fexe combat am le 9 juin mhm. mu am si ndam mhm. loolu la bëgg digganteem ak Tyson 2 loolu nag ndax dina yombal du yomb yaakaaruma ne lu yomb lay doon parce que Tyson 2 dafa ne ci lancé boo xam ne bëggul Franc arrêté ko yaa dégg bi ci des mooy fëgg buntu VIP pour Franc loolu tamit defe naa li ko koy may mooy mu génn ci combat bi ak nam rek avec la manière mais bu ci génn avec la manière tamit ah bu keroogee mën na fëgg buntu VIP waaye comme lu ma la waxoon sànq rek ndax dana ci génn wala du ci génn moom loolu le 9 juin incha allah rabbi di tombeek mercredi ci arène nationale ci lañ ciy xam dara incha allah rabbi yàlla nañ ko fekkete tal ko allahuma amin mhm. bu jógee foofu rek ñu daal di jàll nag gàllaa bi nga xam ne moo amoon démb mooy bu yi daali nga xam ne moo di dab daan moo domte mbaytin am ci moom ndam waaw doomte de xam naa ne baatut waaye li li am ba des daal waaw mooy daan na ko xam naa ne daan na ko jël bu rëy mhm. te itam bëri nañ bëri bu métti te yàgg parce que bëri nañ bëri nañ ñaari minutes yu teg la yu tegal ay seconde te ci biir bëri bi amul fu arrêt amee mhm. xeex nañu bëri nañu mhm. yaa ngi dégg surtout bëri ba nag moo gën a bëri mais la euh, dab daan euh, euh, dañ koy félicité di encourager Mbaye Tine parce que Mbaye Tine tamit wax dëgg yàlla lu la waaye mën a wax mooy nekkul ku neexa daan bëreeg moom dafa metti mhm. mais dab daan boo xam ne moom tamit bëri na lu muy stocké ay xale mhm. parce que la preuve mooy xale yu bëri dañuy juum ci kan ko gisee ni ak taxawaayam dafa am nuñ koy siisee mhm. te fekk na loolu bokkul ak ni si biir yaramam bu ngeen di bëree ngay xam ne dafa man a bëre te njool la moo tax bi ñu da nga jàng si biir exactement dab daan genre yooyu la gis nga bi ñu nekkee ci suuf ñoom ñaar di jeex bëre bi la preuve fa la ko waaw jàppee ci peeku ngem bi di ko jéem a dawal ne ci suuf takk kiyam ci la ko yokkee mhm. yokk sa yokk ko mbay gën a jage suuf mu bës ko toog si mhm. kawam ñu koy félicité moom dab daan di mbër mhm. waaw di si mais mais itam di félicité Idaali ñu ngi ak tournoi ba nga xam ne tëggun na ko fa démb muy ay xale yoo xam tamit ay espoiru làmb lañ pour ëllëg ndax caatu daaw dafaal ku ne xam na ne ah boo xamee mbër di nga xam ne bu gardee boppam wéyee ci ndigal mën na nekk ëllëg quelqu'un ci làmba parce que xale la te macha allah mën na bëri te itam ku discipliné wax dëgg yàlla calme na. calme na trop trop jaaj daaw da faal kaaw gur ne tamit kazalika naka noonu mën naa bëre lool lool ndax démb defe naa fu mu njëkk nga xam ne nii mhm. moom moo doon euh, albarka kayre bëre la ndax jël na coup boo xam ne coup droit bu métte métte métte lañ ko dóor mhm. ba benn moment sax dem na ba xaw a tertere ba nga yaakaar ne day daanu mais mu géré waat taxaw xam nga mbër bul dóoree mu dal mhm. bu amul dal dëgg day day gis ne xaay bi mu ah. yokk léegi bi bi bi bi bi albarka di yokkaati dóoram nag bëgg laawaati beneen droite ba ñam na mu neex mu bëgg fa dolli ci la sa waay wàcc nag tibb ñaari tànk yi te xam nga ndaama la bu ñu wàccee kepp say mhm. tibb say tànk moom mhm. boole ceeg teg la loxo ci ci bopp ci biir jaaxaan ngay def loolu moo amoon démb arène ah, ah. nationale am na solo association des jeunes lutteurs bu Sénégal ñu euh, daal di amal bureau bu bees nag nga xam ne moo di mobile 2 moom lañu daal di euh, def président waaw loolu day defe naa yàggoon nañ koy ruumandaat kon defe naa dëggal nañ ko léegi am nañ seen président am seen secrétaire général am seen ay vice président mhm. muy ñi nga xam ne ñoom ñoo tuddee seen bopp ay jeunes leaders alors nag duñ leen ci ñaanal leen lu dul ñu am ci ndam rek parce que mhm. nit moom boo nekkee ci dëkk di fa yëngutu am nga droit ku ci kuréel goo xam ne da ngeen di jàpp na fa ngeen di xeexe seen ay àq ak seen ay yelleef te ñoom mbër mu ndaw mooy nekk mbër mu mag yaa ngi dégg. fii ñu toll ñoom ñi tey Balla Gaye tolloon na fi Modou Lo tolloon na fi Eumeu Sène Gris Bordeaux ñoom ñu tolloon nañ fi. Mhm. nekkoon nañ ay jeunes lutteurs ba tey ñu nekk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy les VIP. ah bon nag comme ñoom la ñu gis mooy xëy na parce que lii boo ko gisee. Mhm. len rek ko mën a indi maanaam gisuñu seen bopp ñoom. Mhm. ca kuréel ga nga xam ne moo fi nekk te Gris jiiti ko. parce que la preuve ay wax doon na jóg bu yàggul ci weer yi ñu génn defe naa tey moom moo jur lii ah seen bi nag la tax ñu sos ko yàlla na doon dëgg te la tax ñu sos ko yàlla bu mu doon ànd taggante tàggoo jëwante yàlla nañ ko sos daal ci dëgg ngir bëgg a jariñante parce que tamit association yu bëri am na solo duñ ne amul solo waaye lépp solo rek mooy ànd bu mu mën a doon na ànd te yàlla tax te dëgg dëggalal ko parce que ñu ko defatee tamit ëllëg fu la muy jur mooy sànnante ay xeer waxante ay wax te loolu lépp nañ ko moytu comme ay jeunes lutteurs lañ tudde seen bopp te bëgg ëllëg bëgg nañoo nekk ay grands lutteurs nañu fexe ba daal seen association bi mu lalu ci dëgg rek loolu moo ëpp solo am na solo euh, Jax Mbapat Tour du 20 du 12 juin au 25 juillet 12 millions entre Kolda Thiès ak saint waaw ba Kër Moussa sax kay. Mhm. Jax mu mel ni moom itam defe naa ne ak lit simple moom defe naa ne ah bu ñu ci doon xool tey roi promoteur mën nga ko nommer Jax. boo mhm. waxee bu ñu doon dëgg rek te yàlla tax lit simple. Mhm. parce lim ciy génne chaque année si wax dëgg yàlla ci at yi ñu génn gisuñu promoteur di ko ci teg mm. kon defe naa tey bu jëlaatee lu toll ci douze millions parce que ne tasaare ci loo xam ne hors de Dakar la moo lay wan ne kon Jax tamit lamb ñor na ko mais lamb simple tamit mu ngi koy dundal et puis bëgg na ko dundal ci hmm. yeneen dëkk yi nga xam ne bokkuñu dakaar te itam olof a ko wax mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk hmm. kon Jax daal datam boobu nga xam ne mooy commencé le 12 juin ba le 25 juillet moom hmm. ah yàlla na ci génn ak drapeau chef de l'état fële ca Kaolack mhm. mu mel ni rek ñu ngi koy waajal ndax li nga xam ne moo di visite médicale yi tirage war nañ ko amal tey ci alxames waaw tey jeudi noonu la ko yëglikaay bi suñu làmb waxee mu mel ni loolu mooy équipe bu njëkk bi def tir def visite médicale yi xool mbër yi mhm. wér gi yaram gi peese leen xool tamit li nga xam ne nii moom moo di poids yeeg lépp buñ paree nag def doo def tirage bi nag ah xam ba nekki ak ba nekki bay daje lu toll ci fukki raison ak benn ñoo ko nar a seq ren uh-huh. ah ñuy wax ne daal yàlla na commencé si jàmm jeex si jàmm dëkku nag président CNC le nouveau président fa lay amee muy kaw Kaolack uh-huh. di Bira Sène muy loo xam ne nar na neex ñuy profité di leen ci ñaan réussite uh-huh. rawat ni nga xam ne nii moom lañ dënk lit simple bi ci Sénégal tey muy suñu papa Manga 2 te itam wax dëgg yàlla mu nekk nit koo xam ne ku ubbeeku la pour di déglu xalaatu nit ñi te it euh, mbir amee bu ñu la ko dénkee soo ci bëggee def résiltat rek mhm. del déglu nit ñi mhm. parce que du sam xel kese du doy mais li la nit ñuy wax nga boole ko li na ci yow defe naa boo ko dajalee bu juddoo mën na nekk njariñ dëgg la am na solo yooyu la xibaar suñu lamb ñoo ko fa fasaloon ñu jàll ci record lañ fa fekkaat rek moo di uh, combat démb bi entre Dab Daan ak ki nga xam ne moo di Mbaye Tine mhm. Dab Daan nag fi mu nekk nii moom mi ngi défier ki nga xam ne moo di waaw parce que uh, boo xoolee jël nañ fi ay jaaxaarloo mhm. mu ne xa laaj ma Lac de Guiers laaj ma Alioune Seye ñoom ñoo ma xam waaye xamoo ma parce que Mbaye Tine pour lañ Lac de Guiers numéro 2 la ñooy ànd bu dégg bëccëg ci keppaaram la ne kon. mais dab daan bëreegul ak lak. bëreeguñu. waaye nag làmb booleegul itam nag. Mm-hmm. bu ñu waxantee dëgg bëgg na ko. Mm-hmm. waaw parce que daan na leem waaye nag tekkiwul ne day bëri jag waaye nag am na droit tëkk ko. Mm-hmm. parce que lak de ku ne gis na ne démb ñëwoon arène nationale te ku fa woon mooy mbayti moo ko indi woon. mais nag loolu mooy làmba ah. mbër mu ci ndaw mooy ki gis mu bëgg a yéeg. day laaj mbir mu mag donte du ci jot itam waaye dina ko wan ko ci waa waa ci ci yow laa bëgg a ñëw te tamit da ngay rëy bët mais lépp nga teg ko ci yoon rek daan nañu félicité ko moom dab daan encouragé Mbaye Tine waaye xam naa ne daal comme noonu mu ko laajee lak moom mbër la ñoom ñëpp ay licence la ñu yore waaye nag xam naa ne ci guddi ñu toll moom làmb booleegu leen waaye nag li ci kanam rawuli moom parce que lu tax xam daa yàggul euh, les années passent vite ah, ah, ah, am ah Lac de Guiers 2 bëri bu yàggul bëri naag Tapha Guèye mhm. bëri naag jamono yi ñoo ñuy toj Lac de Guiers day ñëw Abdou Diouf waaw vingt et un ans ci ginnaaw la bëriwoon ak mag kon tey lamb lu te tout est possible waa <laughs> eh, di ñaan jàmm rek di féliciter ñu ñuy suivre rek mhm. rawatina dem ñi ñu doon topp ci direct bi mhm. leen wax ne ñu ngi leen di sant di leen gërëm sénégalais yi ñu doon topp dégg foo ñu mun a nekk si àddina bi ñu nekk ci biir réew mi amuñu seen fay ñu leen di ñaanal jàmm waaye mention spéciale tamit ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo nekk à l'étranger muy diaspora bi monde boobu parce que tamit wax dëgg yàlla lépp lu ñuy def rek ñu ngi koy suivre di ñu ndamoo di ñu sagoo di ñu ñaanal di ñu jox ay conseils te wax dëgg yàlla musu ñoo tegante ak ñoom jëg bët mhm. mais xëy na li ñuy def ami mhm. moom la ñu salué ba tax ñoom ñuy def loolu euh, waaw kon waa diaspora boobu encore une fois rek maa ngi leen di wax jërë ngeen jëfati mhm. man Babacar daal wax dëgg yàlla ak groupe Equivox yëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm di wax ne daal incha allahu rabbi li ñu leen defal démb ci direct mu neex lool incha allahu rabbi ci prochaine séance yi di ñëw di ngeen gis lu dàq loolu rawatina le 9 juin bu soobee suñu borom yàlla ko fekkate tal ko beneen direct boo xam ne incha allah rabi li ñu ci bëgg mooy mu dàq bu démb bi ëpp ko qualité gën ko baax parce que loolu mooy groupe Equivox di ñaanal ñëpp jàmm waaye du nuyu tamit ki nga xam ne moom mooy Abdou Aziz Alé Ndiaye borom Huilisador ak groupe ABC yëpp parce que tamit olof ne na peccum su neexee nday jaay jàpp sa mbagg ya am na solo waaye amuñ seen fa yéen itam yéen téléspectateurs yi bu ñuy sonn ndax bu ñuy sonn c'est juste pour euh, bëgg bégal leen hmm. waaye itam à chaque fois rek gis nañ seen taxawaay baax na ni la ñuy daal di yem ak yéen ci journal de la tey di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci beneen numéro jërë ngeen jëf.